xarkanaama depuis ay ati ati at ci loolu la doon dox ngir Ousmane Sonko dégg son excellence waaw loolu dëgg la ndax am na bés mu doon janoo ak Mohamed Diallo daal di àddu ci mbir mu ni mel dinañu ci dikk léegi waaye dangay xam ni système bi nga xam ni Ousmane Sonko enterré na ko définitivement dafa teeloon comprendre liir xam ni waa jile buñ ko freiné wu la ñun ñëpp lay yóbbu à la retraite politique boole kooka tey fi renouveau changement rupture bu doy waar mën nañu ne sax lu ma waral waa ji fexeel nañu ko ba doonul woon candidat waaye teewul askanu Sénégal ñoo ko bëggal seen bopp firndeel nañu ko dimanche bi ñu weesu jox ko une majorité ek écrasante mooy lu exceptionnel loo xam ne ñoom waay politique yi sax jaaxal na leen fa lañ jaaree noppi li leer ba leer mooy dañuy tëj seen gémmañ ba faw Ousmane Sonko du moroomu gaay yi jegewuñ sax pëndam seenuñu ko ci li mu nekk dafa ute lool ak ñoom ci li ñuy dox ci li ñuy yëngu waaye li am ba des mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne ñenn ci ñoom waa système bi bëggoon koo jaxase ak Ousmane Sonko doon ci def seen kéemtalaay kattan lu ne ñu wax ko lu ne ñu lu ne ñu argumenté ko ko seeni ne waa jilee am mooy président de la république mooy son excellence waaye Ousmane Sonko moo di mentoram Ousmane Sonko moo di référence am Ousmane Sonko la doon xeexal ngir chaise bi mu occupé tey jilee mu teg ko fa ñun ñëpp déggoon nañu ko mu wax ko ne loolee jugg ci ba tey yéene bi mu amoon démb ak bërki démb ay jilee la ko gën a am te loolee ñun am nañ yàqin ne tôt ou tard dafay réaliser wu moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kaddu yooyu mu yëkkati woon nga xam ne ku ko dégg dina def benn buum ci sa xol ndax teg kontante ak yéene bi nga xam ne da koy sentir ci kaddu yu Diomaye jugee ci ma muy loo xam ne da koy wax par conviction jëf ko itam ba Sénégal ak àdduna wërngal képp ñëpp teg ci gët kaddu yi président yowoon la ñuy teewlu di gàtt suñu jàngata bu leen fàtte abonné aimé vidéo bi partagé ko ngeen ñu bëri mën cee jot. benn dernière ma lire le euh, colonel. waaw colonel El Hadj euh, Momat euh, Sénébou Thiam muy pose question Sonko mérite-t-il d'être chef suprême des armées ndax bu ñu demee ba benn officier de l'armée di poser cette question là si ku mel ni Ousmane Sonko yow la lay inspiré. officier de l'armée la. Hmm. colonel à la retraite lan la. bon c'est juste une contribution bu ma gis nii. léegi qu'est-ce qui qu'est-ce qui prouve que colonel la dara commentaire nga liir non contribution. fan. mu ngi Sénégal. j'ai pas lu. Mm c'est une question mooy mooy le titre de qui. Mm-hmm. de de de la contribution. Oui, mm-hmm. mais xaw ma réponse am à la lan la mën na ne kii laa di oui il le mérite <laughs> mën tontu ci loolu <laughs> nit mën na poser question uh-huh. def son argumentaire uh-huh. arriver à une réponse affirmative que son Sonko uh-huh. mérite bu boobaa lu ma ciy wax yow yow yow yow wi ngay répondre non liiruma ko non loolu aw ma ci benn doute ci lay xëy ci lay gont ci lay yëndu ci lay fanaan on ne peut pas avoir meilleur président aujourd'hui ci li ma jàpp au Sénégal ko Ousmane Sonko. kon mi ngi noonu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba muy doon un fervent militant nekkoon secrétaire général bu parti bi am na ay jéego yu ama ama am solo yoo xam ne teg na ko façon plateau bu nekk dem na fa défendre projet bi défendre Ousmane Sonko ki nga xam ni. bu doon demoon na ci jongante mars 2024 gars yi gis pëndama ñëpp lay boole duma jaaree fa nekk defet boo xam ne historique 54 nga xam ne sax président Diomaye amoon na ko li ñu gëm bu doon Ousmane Sonko moo participé da koy dépassé largement ndax lu ni mel yéene la boo xam ne askanu Sénégal ñëpp ñoo ko am ci moom li koy firndeel mooy dimanche bi ñu weesu comme ni ñu ko waxee yenn nañ voté ji jox ko carte yi jox ko lenge yi mboolee mi doole ñu teg ko ci loxoom ne ko suñu waa ji liggéeyal yow la ñu gëm yow la ñu àndal yow lañ sopp yow la ñu wóolu am nañ yaakaar ni Sénégal gile mën nga ko transformé waaw dëgg la yaakaar googu nekkul donc sénégalais yi ñoo ko am ba ci sax africain yi gëm nañu ne kii di Ousmane Sonko ñu ko accompagner dina am ndam lu rëy rëy ci continant african loolu moo waral moom yenn kàddoom yu mu yëkkati woon ci jamonoy campagne bi faw ñu bàyyi ci xel bu baax mooy ne am nañ ay nooni biir réew. am ay nooni bitim réew ndax bëri na ci ñoo xam ne bu ñu sañoon tey jilee Afrique du mës a dem du mës a avancé du am itam ay leaders yu mel ni Ousmane Sonko di éveiller conscience su seeni askan ñoom bu ñu sañoon ñun ñu sax ci lëndama ñoom ñuy continuer di ñu noota jël suñu ay koppara boole kook nag lëkkaloog yenn njiit yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ngir di dundee coono yi askan wi kon gars yi mel ne ni mbir mi leer na président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéeneem ci Ousmane Sonko mooy mu dégg son excellence mu doon président de la république du Sénégal yéeneem googu nag mooy feeñ ci seen diggante ñoom ñaar ci seen jëflante loolu moo waral dañuy ñaan suñu borom seytaane sori leen ba kenn du mën ci ñoom dara ñoom itam ñu gën a comprendre ne seen ànd bilee moo téye jamono ji Sénégal lu ñu mën nañu ko def ngir daal di conservé seen cohésion solidarité ñu gën koo yokk ci seen diggante surtout ci gouvernement bi direction yeeg service yi ñëpp àndandoo booloo takkatoo def benn say tànk tànk mbagg ak mbagg bëgg ngir jëm ci développement ndax loolu dong lañuy ñuy lool loolu dong la ñuy yóotu loolu la ñuy xaar ci kenn ku ci nekk ci ñun te loolu dañ koo yaakaaree bu baax a baax ci ñoom ñaara loolu moo waral sénégalais yi bëgguñ am benn yoon mbetteel ba déception li ñuy sàkku te bëgg ko mooy ñoom ñi la ñu réussir ndax seen réussite mooy suñu bos seen échec ñaanuñu ko mooy suñu bos itam kon gars yi nañu leen yéen a jàmm ànd ak ñoom liggéey ngir soppi suñu réew mi lee 2024 at la moo xam ni Ousmane Sonko ni décisif la loolu dafa firndeelu ci ñaari élection yi nga xam ne jaar na fii mooy bu 24 mars bi ñuy jël kii di président Bassirou Diomaye Diakhar fay di ko tabb door benn coup de kaw waa système bi ak beneen sox bi nga xam ne mooy doggali bi le 17 novembre bi ñu weesu Ousmane Sonko mbëkk ko waa système bi jaaree fa enterré leen une bonne fois pour toutes leen à la retraite jël li mu moom jëlaale ñoom li ñu moom seeni base ñu perte ko ba Ousmane Sonko tey jilee ku ko bañoon sax comme Madiambal Diagne nangu na ni Sénégal mooy Sonko. kon gars yi focus ci liggéey focus ci lépp loo xam ne mooy la ñu génnee sénégalais yi ci coono yi ñu nekk waaye itam lépp. ñu koy communiquer di xamal askan wi fan la ñu toll ci yan étape la ñu war a jëm ak lan moo war a nekk seen taxawaay yan disposition la ñu war a jël kon nañuy sensibiliser. loolu moo ñuy permettre doole bi ñu am ñu mën koo yokk ndax ñun ñëpp askan wi ñoo jug taxaw ngir jëm vers le développement. kon nag li am ba des mooy ñu nekkee ci opposition bi xam nañ xel ne tekkiwuñ dara ci kanamu suman Sonko nañu xool naka la ñuy doonee une opposition constructive. maanaam tàmbali di proposer loo xam ni luy ñoŋal réew mi la lu koy yóbbu ci kanam la luy tax développement wu réewum Sénégal ñoom ñooñee ñu mën ne am nañ partition buñ ci jot a am loolee donc la ñuy xaar ci ñoom amul leneen lépp loo xam ni mën nañ ko fay teg comme jéego nañu xam nii nul lay doon zéro lay doon comme seeni zéro ni mu bëree woon bi nga xamee ne ñi ngi dépouillé di leen génneel seeni bulletin ñu doon dégg Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko duma yi métti lool mbàccum gerte mi mën nañ koo éviter waat AGT News